Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen tey nag le dimanche 16 juin stade Iba Mar Diop ak Assane Ndiaye borom borom production tey nag ubbi bi fan la ci gaynde yi la waaye mayo pare bi xool leen Galicia Colobane moo ma jox tey Paris Paris Saint-Germain Galicia moo fi jaar gaynde yaa ngi nii Baba Ali nee nañ nag daal leen naqari taala gars yi ba élection jotee dañ leen di woo te bu passé bu ñuy simb ñuy tas seen simb kon na leen gars yi bàyyiwaat xel Baba Alé ngi waaw waaw gisoo noonu la demee nag. léegi foo jëm. waaw fi ma jëm gars xam nañ ka ah. pour l'instant moom maa fi man booy mënu ma leen jeexal wala bu ñu may joxaan nañ ma jox booy bu saf booy bu am tur si booy rek yéen xam ngeen ñi fi nekk. tudd du ma tudd turu kenn booy ko tudd da nga koy may bës. man daal maa ngi nekk sama ruxa di daas di finaanal. nan ma xoolal nag si booy yu métti yi laa wax nag waxuma la ay booy yu ma jógee. combat tey bi noo ko gisee. combat tey bi waaw. combat bu war a mën a neex la quoi ndax ñun ñii moo ñu tax a ñëw ndax amateur yëpp loolu lañ séntu c'est parce que ñoom ñaar ñëpp ay bërëkal lañ quoi kon tey combat bi war nañ a gis ni combat bu war a a neex lay doon quoi suñu njortu mais jaajëf gërëm ñu jàmm baax baax kan ngay sa ñaata combat day arène bi mooy sama premier combat arène xam nga Siteu non dama koy dégg nag yoo koy ah. na def ndànk waaw xamul xamul ki muy bëree yoo koy def jàpp duma daan dem ñu nit moom booy yaa wax maa wax lii mu ngi noonu bu xale boo xam ne moom itam nañ ko bàyyi xel ay ca Mbaye Tine mu ngi door moom ay ca Mbaye Tine Wow, wow. Thank you. daa taxaw jàppante ba tar na xale yu mën a bëre waay xale yu mën a bëre bul génn waay boo génnee ñàkk sa combat caat jeex na match nii la nii de waaye bii dafa xew bii nii ute na wala aaway ah, match nii tàcc leen leen waay eh sama goro bi nii na waaye nii bi ute na ak kayre ba bu Quench sama goro bi nii na. Thank you. Bébé Diouldé Bébé Diouldé daw mi moom Bébé Diouldé mi moom laa ilaaha illallaah Bébé Diouldé ak Assane Modou Bébé Diouldé Assane Modou Lo ñu wan ginnaaw Assane Modou Lo école de Mor Faram la jóge Bébé Diouldé école de Cheikh Mbaba ñaari mbër ngeen jóge seen école wara ñaari ancien yooyu bokkoon nañu benn écrit Mermoz wala boog ñu jegeñante woon lool Bébé Jules ak Assane wandeelu wi caxu da lay daan Bébé dañ lay daan wala Bébé liñ téye ci maa duñ la daan dañ lay daan eh! booy bébé ak Assane la ilaha illallah waay li neex na waay eta la ilaha illallah waa kii moom xanaa eh waay déggal piano ba loolu de mooy jamono moo di waxtaan ak fii ci Ndakaaru Omar Pène moo ko wayal ee waay ay bool waay waaw waaw yéen a tey ee def leen lu leen xam naa bool de lamb jaarax waa bool yaa ngoog cey ma dund ee waaye Assane bébé jul da dox na ci kaw wala boog Assane moo loo moo dox ee Assane jëli nañu bañ Assane la nga jëli baaxul Assane da ngay daanu waa Assane lu mu def nii waaye Bébé Diouldé nii yéen eh mbaa gaañuwul daal kii gaañu loxo ba Assane Bébé Diouldé wala Bébé Diouldé te loxo ba su meeku jël ba da yomb na trop. loo ne. jàmm ak daa tàng de. dama pare. dama ah. pare. pare pour lan. pour daan ko. waaw. nee na nga pare. pare daan ko. dama pare pour daan ko. waaw. fu mu yem neex bu gaawee bëgg naa bu yéexee bëgg naa ndax liggéey naa ko. waaw tey booy bool. ndey bëreeg marle. yéen ñaar ñëpp ñoom ñooy bëreekat. waaw. yaakaar naa géej waaye mos faa daan wala mosoo faa daan. ah déedéet mosuma faa daanu. macha allah. tey mbaa dina wóor yaag ah pare naa daal lépp. di ñaan yàlla mi may ndam mu may ma ndam ba ci Serigne Touba ànd ak samay mbokk yëpp fi ñu war a def li des yàlla kattanal ñu daan ko ndax man pare naa waaw. li nga yor lan jox ba nga fële. Eh, Marley bëgg waaw bëggee Marley si loolu sant yàlla ana waa géej waa géej waa ñu fi am nañ jàmm bu baax sa waay nee na masta daanu géej way te yow yaa ko fay daan maa koy daan incha allah na yow it yaa koy daan la wax de non maa koy tër si kàttan non non non troisième combat Sa wan ginnaaw Louis Thior a fële droit jàkkaarloo ak yéen Sa Thiès mi mooy xale bi daan nekk ci kanam Balla Gaye 2 bu Balla feccaan mu fecc rek gësam dënn bi xale boobu màgg léegi bay bëre cey làmb mu yàgg ci ñaw di ñaw door na eh Sa jël na coup de jël na droite bu dala dala dal Sa Thiès teel teel nañ la li coor ngay ñam ca suuf Léwi Coor Sa Thiès Léwi Coor Sa a ngay juug ca kaw di wàcc ci suuf loolu mooy duma la may foo jàppe Léwi Coor Sa Thiès lay lay la la luy coor ak Sa Thiès luy coor Sa Thiès mu ngay ñam de moom tamit moom Sa Thiès mu ngay xeex laa ilaaha illallaah waaw dañu niroo trop moog Fils de Balla Sa Thiès bii. Fils de Balla ak Youssou Ndour waaye wàllu teen la Lamine tey wàcc jël la. doon na eh! laa ilaaha illallah loolu saf na de waaye mi yéen na xatti de. déedéet li soor mënta xeex da lay jël. da lay jël mu